alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala kon tey incha allah rabbi altine ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru août 2022 ci la ñuy tàmbali sharxu téere bi nekk sun kanam nga xam ni mi ngi tudd al irshaadu ila saxiixi l ictiqaadi warraddi ala ahli shirki wal ilhaadi noonu la téere bi tudd insha allah rabbi téere bi ki ko taalif mooy fadilatu cheikh الدكتور صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان kon dañuy dimbali ko borom bi subhaanahu wa taala moom mi ñu defal tawfiq ak taysir ban mën koo tàmbali tey xam ngeen ni mbokk yi ban ko annoncé yàgg na waaj bi encore yàgg na waaye tey la ko yàlla doogay dogal jaam ak pexeem yàlla ak dogalam dañuy ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu bañ a dagg même su fekkoon ni benn yoon la sax par semaine ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu defal ñu kàttan defal leen ko defal ko mboolem jullit te luñ ci wax lépp mu jur njëriñ dinañ jéem a fexe nag ba darse yi tamit du gudd ba nga xam ni nit ki dina ko mën a déglu dem moo tax sunu jataayu tey bu njëkk bi mi ngi jëm ci xamle borom téere bi mooy kan ci anam bu gàtt ak téere bi ñu war a jàng mooy ban téere loolu dafa am solo nga xam téere bi ngay jàng dina tax nga gën koo jox yitte borom téere bi taalif téere bi mooy Cheikh Saalih Cheikh Saalih ibnu Fawzan ibnu Abdullah al Fawzan 1354 ci hijriya la judd mi ngi dund ba léegi nag yàlla na ko yàlla sàmb te wéral ko Cheikh Fawzan ci qabayilu dawaasir yi ci la bokk dëkk ca mamlakal arabiya saudiya muy leen naan arabi saudi jàng alquran ba mokkal ko rafetal ko dugg ci école yi di jàng ba yàlla def mu am doctoram ci gàttal magistère am sax ci wàllu miraas la ko def a taxqiqaatul mardiya téere la boo xam ne bu siiw la ñu ngi koy jàngale doctoram mu jëm ak lu jëmale ko ci ay at yu jëm ci lekk ak naan ahkaamul at'ima wal ashriba Cheikh Fawzan di boroom xam-xam boo xam ni bu siiw la bu mag fi ñu toll nii mën nga ni ca Arabie Saoudi ca xam boroom xam-xam yi gën a mag fii ñu toll nii ca la bokk jàng na ci masaayix yu mag jël seen xam-xam nekkoon na donga Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz kooku rek loolu day na tazkiya waaye yemu ca nekkoon na donga cheikh afifi nekkoon na donga abdurazaq nekkoon na donga cheikh mohamad al amin shinqiti boroom adwaal bayaan ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñu siiw a siiw lan ci woroom xam-xam yu mag yi cheikh fawzan jàng ak jàngale rek mooy yitteem jàng ak jàngale rek mooy yitteem ba fii ñu toll nii ak ni mu mage lépp ba léegi mi ngi jàngale jumaam ja nekk ca Malaz muy benn quartier ca Riyad ba léegi dafa am xalqa di jàngale man mii day wax dëgg yàlla jamono ji ma nekkee Riyad di def ab diplôme foofu daaneen bëri lool lu ñuy dem ci ay xalaqaatam di fa jàng donte boobu ma la sorente woon nag université ba waaye ku ma dégg te nekkoon ci université Malick Sound wala jaamete imam xam nga ne waa université dañ daa indi sax am na ñoo xam dañ daa indi ay ay bus ay nit ñuy def lu baax indi ay bus étudiants yi dugg ci pour mën a dem fekk ji xalqa bi kon cheikh bi ci njàng ak njàngale rek la nekk taalif na ay téere yu bari bokk na ci téere yooyu téere bii ñu war a jàng muy al irshaadu ila saxiix li atiqaad xam ngeen ni cheikh Fawzan bokk na ci hayat kibaar ulama xam ngeen ni Cheikh Fawzan bokk na ci lajnatu al-lajnat daaima lil ifta wal buxuus xam ngeen ni Cheikh Salih al Fawzan bokk na ci al-mujamma al fiqhi bi nekk Makkatal Mukarrama kon kilifa la kilifa la Nuur ala Darb xam ngeen ni def na ci ay émissions yu bëri di fatwa téereem bii ñuy jàng nag mooy ban téere mooy al irshaadu ila saxiixi li atiqaad wa raddi ala ahli shirk wal ilhaad ay orientation yoo xam ni day tax nga mën a am pas-pas bu baax waaye nag mën a jubbantiwaale jubbantiwaale pas-pas yi nga xam ni daa mën a tàbbil nit ki ci bokkaale ak ci génn ci diine lii mooy turu téere bi kon téere bu ama ama am am solo la téere bi ku ko jàng te dégg ko ah duma ni dina am lu la réeratul de déedéet waaye nag di nga xam lu bari ndax téere bi ni mu ko taalife donte nag taalif bi toogul woon ni di ko taalif dafa toogoon doon jàngale doon jàngale pas-pas wax na ko ci biir téere bi gis ni danoo war a yittewoo jàngal nit ñi pas-pas gis ni danoo war a yittewoo ci tontu lënt lënt yi nga xam ni nit ñi dañ koo indi mu nekk ak njaxas ci biir aqida yooyu mu doon jataay yooyu mu doon def nag la téere bi soqee ko mu jun nekk xam-xam boo xam ne bu fees dell la bari lool ba nit ñi proposé ko sax ne ko nan ko def téere far yàlla def mujj koo def téere téere bi da koo teg rek ci li mu njëkk a def mooy teg ko ci usulul aqida al islamiya maanaam fondement yi nga xam ni moo téye pas-pasub l'islam xam nga yooyu buñ koy wax mooy juróom benni ponk yi al imaanu billah gëm yàlla ak al imaanu bil malaika muy gëm malaaka yi ak al imaanu bil kutub gëm téere yi al imaanu bil rusul gëm yonent yi al imaanu bil yawmil axir gëm bisu penc ak al imaanu bil qadar gëm dogal yi yooyu noonu boo ci jël détaillé ko soo paree da ngay gis ni lu bare bare bare bëri ci sharia ci wàllu pas-pas pegg nga ko parce que loolu mooy mooy usul yi mooy cosaanu sharia mooy cosaanu pas-pas yu ci bëri yooyu jàng mu aju ci pas-pas détaillé la bu aju ci juróom benni ponk yi ci la nag teg téereem bi moo tax booy xool ci téere bi diñ ci jàng masala yu bari yooyu dinaa la ci tuddal ndax nga mën a préparer xam ni yii yépp kat mi ngi ci mi ngi ci téere bi te dina ñëw insha allah rabbi ci biir téere bi dina la ci jàngal tawxidul rububiya dina la ci jàngal tawxidul uluhiya tawxid rububiya tawxid uluhiya tawxid asma wa sifaat loolu mooy ñetti xeetu tawxid yi mais surtout bu ñëwee ci tawxidul uluhiya dina la indil encore relation maanaam diggante tawxidul rububiya ak tawxidul uluhiya dem na sax ba indi méthode méthode yi nga xam ne alquran indi na ko ci woote ci tawxidul uluhiya mooy asaalibu alquran fi daawati ila tawxidul uluhiya indi na ko ci téere bi indi ci ay exemple yu am solo dina la leeral ci biir téere bi bokkaale naka la tabbee ci nit ñi kañ la bokkaale tàmbali ndax yàlla subhanahu wa taala ñam bindoon moom toog nañ ay ay siècle siècle yoo xam ni ci tawxid rek la nekk kañ lañ dem ba bokkaale tabbi ci dina ci leeral dina leeral ci téere bi gravité bi nga xam ni moo nekk ci bokkaale ak war gi mu war nag ñu mën koo moytu ba pare jël sabab yi tax ñu moytu ko ci biir téere bi dina la ci leeralal ay moyen ay moyen yoo xam moo xam ay wax la moo xam ay jëf la yoo xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da koo tere parce que daf lay yóbbee ci bokkaale ay mbir yoo xam ni nit ku ko topp moo xam wax lay doon wala jëf fa muy teere ak moom mooy bokkaale mu alerte la ci mais ci biir téere bi dina ci jubbanti ay lënt lënt yu bari yoo xam ni yii dafa aju ci ñi nga xam ne ñi ngi bokkaale ba pare maanaam di ko layal am na ñoo xam ne dañuy bokkaale ba pare santiiru ñu ni li ñuy def bokkaale la ñu koy layal nag pour sax xam nga loolu dafa bari léegi ci suñ jamono ñu ci leeral yu bari dina leeral ci téere bi xeeti bokkaale yi anwaa shirk moo xam shirkul akbar la bi nga xam ne indi na ci ñeenti ñeenti xaaj muy shirk fil xawf ak shirk fil mahabba ak shirk fi tawakkul ak shirk fi taa ci biir téere bi dina ci leeral ay mbir yoo xam ni dafa dàqanteeg tawxiid waaw maam dafa safaanoo ak tawxiid te ku ci nekk mu mën laa yóbbi ci ak murtat ay mbir yoo xam asiya yoo xam ni tunaafi ak tawxiid dina leeral ci téere bi encore ay mbir yoo xam ni ay mbir yoo xam ni ñenn ci nit ñi ñi ngi koy def te moom bokkaale la ay mbir yoo xam ni nit ñaa ngi koy def ba pare xamuñu ni lii ñu def nii bokkaale la bokkaale nag mën na koo génn mën na laa génn ci diine ci indi na ci ay mbir yu bari lu war a jege juróom-ñeent ba fukk bokk na ci ci yooya misaal yam ci indi di takk ay téereeg yu demee noonu di jël ay cëwreeg ay fas jàpp ne dalay jariñ wala dalay lor di barkeelu ci garab yi di leen raayeeg doj yeeg yu demee noonu ndax di woo fa jaar di woo fa toog di woo ko laaloon njabar bu xaaba yi yu bëree bëree bëri bëri ci yooyu indi na ko foofu mais leeral na ci téere bi encore ay mbir yoo xam ne naam mënta nekk sax bokkaale bu mag waaye nag bokkaale gu ndaw la te xam nga ni bokkaale gu ndaw mën naa yóbbu nit ba mu àgg ci bokkaale gu gu mag indi na ca ay misaal ci téere bi lu mel ne waat ci keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala lu mel ne ay bokkaale yoo xam ne ci wax lay jëm masalan bu neexee yàlla neex la yu demee noonu bu soobee yàlla wala bu soobee diw nga xam ni ay bokkaale yu ndaw la waaye mën naa yóbbu nit ki ci bokkaale yu mag indi na ca yu bëree bëri bu ñu duggee ci téere ba agsi ca incha allah rabbi di ngeen di ngeen ko gis bokk na ci téere bi ay mbir yoo xam ni jàngale na ko ca mooy nag leeral manhaju ahli sunnati wal jamaa ci buntu asma ak sifaat buntu manhaju ahli sunna wal jamaa lan mooy seen taxawaay lan mooy seen pas-pas ci turu yàlla yi ak melokaanu yàlla yi loolu def na ci lu am solo ba pare nag indi manhaju ñi nga xam ni dañoo wuuteeg ahlu sunna ci loolu lu mel ne aljahmiya ak mu'tazila ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen téere bi bokk na ci yim ci leeral mooy lu aju ci malaaka yi lu aju ci téere yi wàcc ndi ko détail lu aju ci yonent yi rusul yooyu yëpp leeral na ko duñ ko détail léegi buñ ci egg dañ ko détail mais masalan rek ci misaal lu mel ne ci rusul bi mu ci egsee wax na dalailu nubuwa lii tegtal ni li kii ab yonent la mujizatul mujizatul quran leeral na ko ca anbiyaay ban diine leen leen indi woon ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xasaais yi mu am moom nga xam ni bokk ko kenn leeral na ci ay mbir yu bari ba pare ñëw ci al isra wal miraaj ci njàngat boo xam ni dafay aju ci pas-pas dem ci sax risalatu nabi sallallahu alayhi wa sallam ak ku koy weddi ak ku gëmul ni yonent bi mooy yonent bi mujj ak kuy woote woo ak yonent ngeen yooyu yëpp lu am solo rawatina ci suñ jamono ji ak sunu réew mi ndax bëri nañu ciy woote naan ay yonent lan wala seen waay ab yonent la leeral na ci bu baax a baax a baax a boo boo ci génnee di nga am bagage yu dëgër yu fees dell yoo xam ni keneen ku taxaw sa kanam ni la diw yonante la wala diw day woote yàllaa ko yónni rek nga xam ne ay caaxaan la leeral na ci téere bi al iman bil yawmil axir lu aju ci bisu penc li ci sharia jàngale ci texte alquran yi texte sunna yi indi na ci lu bari tàmbalee ko sax ci mandarga yi nga xam ne mooy ñëw ci li ñu tuddee ashraatu saa xam leen am na mandarga yu ndaw am na mandarga yu mag yoo xam ni lii buy am dina xam ni bisu penc mi ngi jege waaw bokk na ca mandarga yu mag ya tudd na ca zuhurul mahdi loolu leeral ko dafay am solo xuruju dajjal dajjal bi génn wàcc bi isa alayhi salaatu wasalaam di wàcc ya ajuuj ak ma ajuuj bu ñuy génn ñooñu ñooy ñan yooyu yëpp mi ngi ci biir téere bi xuruju dabba bi nga xam ne dina dina génn ci axir zaman jant bi ni mi sowe fam daa fenk fenke ak yeneen ak yeneen yoo xam ni tudd na ko ci biir ñëw encore ci mandarga yu ndaw yi moom it tudd ci yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak gëm win bin war a gëm ni àdduna bi dafay jeex ñu war a dem ci beneen dund bu bokkul ak loolu kooku ci téere bi def na ci ay taxawaay yu ama ama ama am solo waaw pare foofu ñëw sax ci alxabru ak fitnatul xabru ak ya cay am selon ni ko jullit bi war a gémme pas-pas bi mu ci war a am waaw su alu malaka yi ni ba ca nekk malaka yi laaj mbugal ba ca nekk xéewal ga ca nekk ndax maa mu nekk rodo min riyaal janna wala xafra min xafari naar tegtal yi ñëw ci yooya lii tax nit ki ñu koy mbugal asbaabu azaabil qabr leeral na ko ci côté boobu ah ba leeral sax nit ki li mu war a gëm ginnaaw nag bu ñu demee yowmal qiyaam la fay am xam ni tudd na ca presque lu war a mat juróom-ñaari mbir yoo xam ni bu ci nekk taxaw na ci lu mel ne alxisaab war a régler jaam ñi i'taa saxaa'if jox bi ñuy jox nit ñi seeni téere jëf yu ñu doon jëf ah waznul ahmal ni ni peese jëfu nit ñi. assiraatu wal murur alayhi ni nit ñi di rombe siraat alxawdu la fay xew muy xawdu nabi sallallahu alayhi wa sallam ak kawthar shafaa bay am muy ramm naka lay demee ak yéen charte moo ca nekk aljannatu wan naar bi nga xam ne mooy finalité ba dugg àjjana wala safara yàlla ci yàlla musal gis borom bi subhanahu wa taala na ko ahlul aqida tracé na ko ahlul aqida jàngale jële ko ci alxuraan sunna yooyu yëpp mi ngi ci biir téere bi mbokk yi di nga gis ci biir téere bi buñ duggee ba ci biir incha allah rabbi bunt bi jëm ci alqadaau wal qadar muy dogal waaw dogali borom bi subhanahu wa taala yu neex ak yu naqari mais gëm ko mu leeral la yan njariñ moo ci nekk thamaratul iman bil qadaa wal qadar ki ko ki gëm ndogal yan njariñ la cay jëlee leeral la ci al wala wal bara ah ki ngay jàpp ak ka ngay bàyyi ci bunt boobu leeral na ci lu bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëri ba leeral sax nit ñi aqsaamu naas fil wala wal bara waaw nit ñi selon ci al wala wal bara jóge ci loolu ñëw ci beneen bunt bu am solo ci biir téere bi mooy moytuloo nit ñi ci wàllu bidaa ak taxdiru min al bidaa xamle na fa lan mooy bidaa xam indi na fa anwaal bidaa muy façon façon bidaa yi nga xam ni mooy yi am ba boo ca gis nga xam ni lii bidaa la indi na àttey bidaa ci téere bi dugg na ci phénomène yi nga xam ne ay phénomène bidaa la yi xew suñu réew mi bidaa kañ la tàmbali sosu waxtu zuhurul bidaa ak yu bëree bëree bëri lu aju lépp lu aju ci maam ay bidaa ak sax ay asbaab yoo xam ni mën naa yóbbe nit ki ci mu tàbbi ci ay bidaa al asbaabu lati addat ila zuhuril bidaa yi nga xam ni ca démb sababoon na bidaa feeñ waaye tey ci suñ jamono ji tamit mën na koo sababaat indi na ca loo ramat ñeenti mbir yoo xam ni boole na ca al jahl bi ahkaami diin réer a diine ñàkk a jàng moo tax tamit diine ji ku ci nekk il faut ngay jàng te jàng du wees nag da ba ngay faatu mën ngay jàng rawatina suñ jamono ji méthode yi nga mën a jàngee dafa bëri sa biir néeg ngay toog ñu lay jàngal audio yi di egsi ci yow leeral na ci ittibaal hawa topp bakkan am na koo xam ne moom jàng na xam na mais dafa topp bakkanam mën na ko dugal ci bidaa da ngay gis ku koo xam ne kami topp di yapar yapare ci ginnaawam di ko raayal ay tànkam ak di di ko sujjootal ak di toroxla ci kanamam moo ko ëpp xam-xam foofu bal moo ko jàngal sax waaye pas-pas bu yàqu tax na mu ni kii kat moo sant santu ma santul mooy doomu diw kon naa topp ci ginnaawam kon ittibaaxul hawa yeesa dana ci dugal nit ki at taassub lil aara war rijaal par parloo mën naa dugal nit ki ci bidaa ak at tashabuh bil kuffaar noru noru lu yéeféer yi yooyu yëpp leeral na ko fa ginnaaw ga nag mu mu ñëw ci position l'islam ci bidaa ak nitu bidaa yi mu indi ci manhaju ahlu sunnati wal jamaa ci ni nu bañ a bidaa ak ni ñuy taxawe ci dàq bidaa seen kemtalay kàttan indi ci ay misaal yoo xam ne incha allah rabbi moom la jeexale téere bi bu boobaa daal incha allah rabbi jàpp naa ni bu ñu bu ñu bu ñu jeexalee téere bi tuuti njëriñ incha allah rabbi dina ci mën a génn ñaan yàlla rek mu dolli ñu sellal dolli ñu ko ñun ñoo dolli leen ko yéen ñiy déglu ndax xam ngeen ni jaaran jaaran bu gaaw bii ma jaar ni ci tomb yi nga xam ni mi ngi ci biir téere bi ah lañ koy njëkk a yëgee rek mooy téere bi am na solo loolu moom moom li ma leer ne moom dinga ko ci yëgee parce que bunt yi nga xam ne bunt bu ci nekk rek bunt bu ci nekk bind nañ ci téere wala ay téere benn bu ci nekk bind nañ ci téere wala ay téere kon su ko indilee ci anam bu gàtt nii nga mën koo comprendre loolu xéewal la ba tax na tamit incha allah rabbi day ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq defal leen ko kon foofu la ñuy taxawandi ba ay bis bii di ñëw